li ñuy wax d' abord mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna allahuma axfir lahu askani làmb ñàkk nañ nit ku baax moo bëre na ba tekki ngembam kenn mësu ko dégg mu jëf lu jëf lu ñaaw walla mu wax lu ñaaw moor pare na làmb ànd ak ay xale di leen encadrer kenn mësu ko gis mu xëccoo dara ay at ëpp na fukki at ak juróom dama ko booleek suma benn rakk bu doonoon professeur cardiologie la doon teg ba mu yëgee déj bi daf ma yónnee message li ma ci wax mooy yaa taxoon ma xam ko mais li may retenir ci nit kooku mooy ku yaru la ku jullite la waxtu fi ñëwoon balaa muy dem li ñuy mujjee def mooy ñu toog ñaan eh, comme ñaan la gëmoon. yàlla yóbbu ko yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem lu mu ragal yàlla bu mu ko gis ci bàmmeel yàlla na ko yàlla yéegal ci ajjana yi gën a kowe ajjana firdaws ci wetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa njaboot gi fi des nag yàlla ci yàlla teg loxoom aar leen sutura wér ak gudd fan ñu ngiy gërëm nag ñi fi fekk yëpp rawatina saa Kajoor moor musul toog weer wu ñu gisewul mook saa kajoor seen diggante ñëpp xamoon nañ ko kon nag njaal mi dañ koy teg ci loxo saa kajoor mu jox ko famille bi yëpp